jërë ngeen jëf premier ministre Ousmane Sonko ak li mu ne woon réew mu yàqu bay xotti kese des ci lañ ci fekk journal L'Observateur xëy na dajale xott ya ubbil yéenekaay bi régime bu bees bi ak li ñu fi fekk ci wàllu koom mu di état des lieux de l'économie L'Observateur ne nañu bokk na ci lu jege 161 yu réew mi di ñàkk at mu nekk ndax évasion fiscale bokk na ci limub ñu ñàkk ci réew mi mu di pauvre yi ak ñu yokk ci réew mi yokk gu dem ba ëpp ñaari Lat Diop ak Jérôme Bandiaky ci loxo yoon témoigne mi ngi ñuy xibaar ci xëtam njëkk ne li ko waral bokkut ak dara ak reddition des comptes gi ñuy wax seeni dossier journal bi nee nañu dafa bokk ci dossier yi Macky Sall soonu woon moom la parquet bi bëgg évacuer waaye reddition des comptes gi ñuy wax léegi tey mu tàmbale ñi am ak yoon kenn ci di Lat Diop Les Échos mi ngi ñuy xibaar ne enquêteurs demoon nañu këram démb ngir doon fa amal ay perquisition à vue terewul Lat Diop ma nga ñu tëye ba léegi loolee nag la awkam di ñaawlu ndax nee na ñu ko def dañoo def leen neex rek waaye teguñu ko ci benn yoon yéenekaay bi nañu waa ji ñu ko waroon a confronté di ki jiitewoon wa nig si bét source mi ngi ñu wax ne confrontation bu jul am ndax waa ji ñëwul doonte diggée woon ne dina ñëw ñu ñëw ci xët mu njëkk journal Tribune gis fa njiital forum civil di Ibrahim Seck ma nga fay wax ak président Diomaye yoon wi ñu gis mu tàmbali koo jël du ko jëmee fu baax justice du patampate mais ay mbiram yoon dafa soxla temps ngir def liggéeyam ni mu ware rawatina bu dee loo ne dafa soxal mbiri criminalité économique ak financière Birahim Seck dolli ci ne tëddee njaaxaanaay mooy tug wat a taxas jëme genn wet sa mooy lii wéral reddition des comptes bu ci amul rek ay caaxaan lay doon caaxaan faaxe la séeréer wax séeréer bi di Bassirou Diomaye Faye ak wax ju réy ji mu wax démb ca ONU mi ngi riir ci yéene kay jommal na àdduna bi Soleil national la ñu président de la République Bassirou Diomaye Faye def na démb discours bu réy bu ñu dul ci assemblée générale bi waa organisation ko wex xatt le président Diomaye wax démb ca ONU inégalité nañu président Diomaye dem na ba yox tubaab bi ne warul am ci àdduna bi benn réew buy jël li mu baaxoo ba muy dunde bëgg ko imposer yeneen moroomi réewam l'observateur nañu 79e session ordinaire bu assemblée générale ONU bi duñu gaaw fàtte discours président bi président Diomaye ak wote législatif yi mu wote ci réew mi fukki fan ak juróom-ñaar ci yoru novembre enquête dina mi ngi ñuy xamal ne opposition bi wàllu gis nañu coalition jàmm ak njariñ gis nañu coalition sàmm sa kàddu li ñu bëgg mooy def ci législatif yi lu mel ne li woon daaw jéeg jur jàng jeneen ji leen di xaar ñoom ñi bëgg bokk ci élection législative yi journal bés bi lu jour nee nañu mooy koppar yi ñu war a campagne lay fa ne ko bu dee kii di Maguette moom ak ñi mu àndal ci mouvement bi di la marche des terroirs ànd nawle ñoom way wa daanu na seen caution mat na ni militants Maguette Sène ne ko demal déposer ji sa caution ñëw ñu waajal woote yi woote yi législatif yooyee ndax dana am ci àpp bi ñu ko jàpp li tax mi ngi ci xët mu njëkk Dakar Times journal bi nee nañu dafa am ci opposition bi ñenn ñu gis ne président mi woote woote yi gis nañu ca na mu ko woote fukki yoon ak juróom yoo xam ne da ci xëtt loi bi ba tax ñu dem saisir cour de justice bu CEDEAO journal Le Quotidien ne ko waa ATEL ñoo àndul ci ni ñu bëgg a organiser élection législative yi moo waral weeru novembre lii quotidien bi ne waa atel attaqué nañu décret bu jomaay bi journal las ne ko ci cour de justice bu CEDEAO fa la ko yóbbu mu yóbbu leen ci xët mu njëkk Walf Quotidien mi ngi ñuy wax ne bés ni tey ñaar fukki fan juróom-benn ci weeru sàttumbar ci atum ci la batalo Joola suuxoon ba ñu bari lor woon ci ñaar fukki at ak ñaar ci tey ñu koy fàttali waaye bés bu am solo bi ci histoire u Sénégal Walf nee nañu bu ñu moytuwul